ah nag sàcca ma gën a la euh, fenkat yow tey un menteur fi nga toog tey jël Adji Sarr al sa appartement fële sa fële ah, góor gi jaar fa di ko yóbbu ndar ah, ñu wax nga xamoo ko doo ci wax affaire François Hélène ne buggaan ak ay preuve kan moo ciy fenkat ah, metti ay yow ay Barthélemy mooy saawaay mi ngi dawal te waxul seen tur tudd leen sax Ousmane Sonko da leen jéppi ba waxul seen tur fi la ko naan sama doomu ndey mu génn Ousmane Sonko ignoré ko la manière meilleure manière de isa nga perche ca bu perche nga neena nga don jaay tek xel ba sa xel er, ray la nga nan ma ngi dua. Pas itu parce que important do ci dara ba lima mettre rek moy pourquoi tu n'as pas pris part aux élections ñew bu la ci ASC batterie faible 0,1% té bu gaan ci la promet kura mau karim Election ini ñew soxlalu parrainage di nga bokk ñu la ne yow do gat on a vu plus coriace que vous nga ne defend di fen hypocrite jaloux Ousmane Sonko mo lay fat dama deg omzo dala lu mo xon fokk jant bi dugg pour bi deeyu mëna feñ Ousmane Sonko jant la tank mu fi am dara tank Ousmane Sonko mi ci xam loolu nga defe ne yow Sénégalais ils sont ñëw di la voté leen Bougane mais eh ñu jàmm waaye war nga jël sa télé boobu instrumentaliser ko ku yàq Ousmane Sonko nga may rek nii loolu ak loolu sax du am dara ubbil ubbil quatre télévision iseen fi wër def sa ay nemmeeku xamal lan sa kii yooyu gëm sa bopp ak yooyu nag gat doo ko am Sonko Sénégalais yi jox bopp moo lay rey di nga dee yow ay Barthélemy yéen ñëpp vous allez tous mourir ak Pape Djibril Fall gaaw a jooy hypocrite que vous